may gis maanaam kilifa gu mag ci ci weeru nawet bi nii muy wàññeeku di wujju suñu borom. kilifa gu mag. kilifa gu mag billaahi laa ilaaha illa ak koo xam ne maanaam ci télé yi lay nekk ñëpp xam ko. Hmm. muy dee dee goo xam ne maanaam buy jaaxal ñëpp lay doon. sëñ lëg daaw daf ñuy wax ñuy génn di ko wax mais. jërë ngeen jëf mbokku internet Cinevox Plus ñu ngi leen di jaajëfal bu baax topp ngeen ñi topp waaye rawatina ànd bi ngeen ànd ak ñun. ñuy jàkkaaroog sëtulëg daawur di jëmm ju yéeme ci xam-xam waaye di jëmm ju lu yéeme ci lasaar di xale du tut tànk waaye suñ borom def xam-xam ci moom xam-xam mu mag moom nag kenn dootu ko présenté askanu senegal ndax ku ñu ràññee la sëriñ Jili sëtulëg daawur maa ngi lay nuyu. bismillahi dund rahmaani dànd tànn ngeen may gisee waaye dund ngeen may bàyyee im nu walit salit dalit bismillahi yàlla kenn la. Mhm. yàlla tiifu yàlla tiifu yàlla tiifu. ajuma jum ajuma tax a jum ngum saare doj fëtul ku tabaxul doo toj te bopp ñaar xaju ci moom maa ngi lay delloo nuyu bi di la ñaanal jàmm di ko ñaanal senegal yëpp te di ko mm-hmm. ñaanal sama bopp ak samay ñaari waajur mm-hmm. bisimilah. jërëjëf sëñ sëñ Jili di sëtul ak Daawur nga doon jàmbaar doon borom xam-xam waaye tamit nga doon koo xamante ne kenn dootu la présenté ci àdduna sëñ bi avant nawet bi jëw am nga loo ci waxoon ca émission Sozo ba mu doon loo xamante ne lu doy la nga ni nawet bi ñu jëm. dina doon nawet bu doy waar waaye tamit dina doon nawet boo xamante ni wax dëgg fa yàlla suñu moytuwul dina yéeme lan moo tax nga waxoon loolu ak lan moo taxoon ak foo ko gisee woon. moo ñun nekk euh, surtout ak daaw di xam li nga xam ne moom moo xew ci réew mi. Mm-hmm. di xam tamit li nga xam ne maanaam moom moo war a xew ci réew mi. Mm-hmm. kon nag bu yàlla defee maanaam am loo xam ne mi ngi ñëw. Mm-hmm. ñu yëg ko wala ñu sentir ko. Mhm. liñ mën mooy def ci ay sarax ak génn wax ko nit ñi xam ne ñun kat li war a xew ci réew mi ñun dañ koy xam. dëgg la. man leen lay woon nawet bi dina yéex waaye ndox dina am. te incha allah rabbi ku ne gis na ndox am na. Mhm. waaye nag comme ndox am na la ca kanam ba xam ndox mi dina jur jàmm wala du jur jàmm looloo jar a laaj. looloo jar a mhm. waaye en tant koo xamante ni da ngay sët di doom ci lëg daawar nga ne fii lu fi xew balaa kenn di ko yëg sama maam dina ma di wax. lan mooy sa diggante ak sa maam di lëg daawar rabu ndakaaru bi. déet du doomu lëg daawar waaye sëtu lëg daawar laa. sëtam sëtu lëg daawar laa li war a xew ci réew mi ñu war koo xam. Mm-hmm. ndawet bi comme li ma ci gis. Mm-hmm. wax naa leen ndox mi dina bari loolu waaye maanaam musiba bi moo ëpp lu baax li. musiba bi loolu lu ma wax la lu leer la. Mm-hmm. moo tax nawet bi dama naan gis nga kër gu nekk bu mënee saraxe ñetti ndabu laax. benn ndabu laax bi ay góor kese sukk ci. yeneen ñaari ndabi ay jigéen kese sukk ci xale yi lekk ba pare bu ñu raxasoo nga jël raxasu mi nga këpp ko ci kër gi. Hmm. kër googu jàmm dinañ ko am. parce que baa xam nga ne nawet bi dafa bëri ay rab yu jigéen yoo xam ne maam dañoo tasaaroo ci dëkk bi. Hmm? ñaar yi dañ koy bañ yëre bu xonk. yëre bu xonk. moo tax ma ne. Hmm. koo xam ne maanaam nawet bi ba nawet bi di muy jeexee. mën nga maytu wala nga muslu. di sol yëre bu xonk lu baax ci yow la. waaye ku koy def musiba bu la dal xamal ne Serigne Djily Sirou Lock Dar waxoon na ko nawet bi dafa am ay rab yu bëree bëri yoo xam ne dañoo jaxasoo nekk ci biir dëkk bi ñu nekk ay rab yu jigéen di maytu mm-hmm. mm-hmm. ñuy sol yëre yu xonk surtout jigéen ñi surtout jigéen ñi waaw sinon rek maanaam jàmm pour mu am ci réew mi dëgg dëgg dëgg day nekk jafe-jafe ndax nawet bi nawet bu tàng la hmm? bépp sëriñ bu ne lii nawet bu neex la hmm. maanaam waxu la li nga xam ne moom moo am ñun en tant que ñu nekk sëtul ak daaw di gis li nga xam ne moom moo war a am dinañ wax saraxu Ndakaar yoo xam ne nit ñi dañ ko war a def ñun hmm. ci mën a def dinañ ko def waaye ñu ngi maytuloo nit ñi ñuy sol ay yére yu xonk surtout jigéen ñi. parce que nawet bi jamono ji ñu toll nii dafa tàngal. kon ci gàttal bu ma la déggee nawet bi dina doon nawet bu neex waaye tamit dina doon nawet boo xamante ni bu bëri ay yàqu-yàqu la. mën nañ ko gisee noonu. Hmm? waaw ndax ndox mi dana bëri waaye yàqu-yàqu dana bëri. waaye yàqu-yàqu dina bëri. loolu lu leer la. Hmm? dëgg la. mais sëñ bi loolu kan moo la koy ak nan nan nan nan ko lëg daaru di waxee ci jëf la. man dama ne lépp loo xam ne dama génn wax ko rek lëg daaru moo ñu ko wax te dañuy génn wax ñun amuñ lu ñuy tiit amuñ lu ñu ragal lu ñu lëg daaru wax dañuy génn wax ko. Mm-hmm. te nekkul tay lañ ko commencé nekkul tay lañ koy yemale te yàgg nañ tamit lëg daaw dañuy wax ñuy génn di ko wax nit ñi di ci teg seen bët. Mm-hmm. waaye tamit nim ñu koy waxee noonu la ñuy waxee ay sarax yoo xam ne dañuy yëkkati suñuy moyen bopp suñuy xaalis bopp dugg ci géej gi def ko dugg ci dëkk bi def ko yàlla bari suñu borom mën ñu may ndam ci côté boobu. Mm-hmm. voilà. macha allah euh, sëñ ji li nga doon jàmbaar doon borom xam-xam euh, doon xale euh, bu ñu gisee nga doon xale wala nga doon jeune nekk ci réew mi def def lu am solo ndax nag kenn dootu la présenté askan ndax euh, ñu ngi lay suivre partout à travers euh, rawatina sa voyage yi nga xamante ne yaa ngi koy def euh, muy sa génn yi sa tournée internationale yi waaye ni nga doonee xale nii ah doon ñaankatu yàlla doon sëtu lëg daawur mënul ñàkk ni mën nga see jot ay critiques léegi-léegi ah loolu mënu cee ñàkk mhm. des fois da ngay gis kuy critiquer li ngay def des fois da ngay gis koo xam ne du ñam ci critiquer sax mais day jug di la jëm a yàq mhm. waaw man dama nekk nit koo xam ne ku jàpp ne aw ma gàllaa jàng bu dee bët ak làmmañ mooy rey nit man maa ngi fi ci kanam. Hmm? nit ko am gàllaaj laa. kon yow kon yow loolu lum. billaahi lazi laa ilaaha illaa nit ku ma sóoru da ngay gaañu. nit ku ma liggéey yàlla bu dul suñu borom dina jël sa bakkan. Hmm? waaw moo tax man dama leen di wax ne maanaam bu dee bët ak làmmañ mooy reyee. Hmm. bàyyi ma sama bopp de loolu moom ba yeboo yow mi di ma seetaan ni nga xam ko. loolu lu leer naññ la. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. te mën nga loolu mën naa ko defalee loolu parce que jamono ji dafa toll foo xam ne maam da ngay gis nit koo xam ne day nekk ci liggéeyam. Mhm. nekk ci liggéeyam nekk ñu sànni ko kort. dëgg la buñ ko sànnee kort moom liggéey ba nekkoon yëpp day arrêté day arrêté wu mhm. am weer cent weer quatre weer soixante mhm. mille. nga dem wuti loo sangoog loo naan. ay sama yaay ñaanal na maag am naa ñaanu waajur loolu ku ci nekk nag ci génn yonent moom moo ñu gën téeméer ji noonu yàlla moo ko yónni dañ ko liggéey nit ki kaaraange dafa baax ci nit. Mm-hmm. boo wutoo kaaraange pare nga dem nga wuti wërsëg. Mm-hmm. nit ki mën nga nekk ci loo xam ne weer yaa ngi ci am deux million wala yaa ngi ci am jàmm yaa ngi ci am salaam. Mm-hmm. jot nit yàqal la ko ci ay minutes. dëgg la te lim ciy fere du mat sax du du mat sax trente mille. li may lancé appel. mooy gis nga nit koo xam ne maanaam yaa ngi ci kaw suuf. di liggéey yàlla bu suñ borom di la wërsëgëree dara. te mën nga wuti kaaraange ci sa bopp. da wut kaaraange sa bopp ndax fii képp ku fi jóg. gis nga boo fi toppee ñu naan du ma du ma takk. du ma naan du ma sangu. Hmm. billaahi lazi yaa ngi ci erreur. yaa ngi ci erreur nekkee da nga topp ñi ci télé naan du ma takk du ma naan du ma sangu yaa ngi ci erreur ñoom bu ñuy dem di sangu moom mooy est-ce dañ lay tàggu. bu ñuy dem di di di di di di sangu est-ce dañ lay tàggu bu ñuy dem di takk est-ce sangu. fii boo fi nekkee nga bëgg a avancer bëgg aar sa yaram. Hmm. sangul galax ndikul diwul defal lu ne. dëgg la. ku ko dul def yaa ngi ci erreur. kon lan ngay digal jeunesse bi ak jeunes yi nga xamante ne peut-être ñu ngi ci yoon. mooy muñ maytu xool sa yoon. Mhm. Sénégal dafa nekk foo xam ne dafa naqaree nekk. yow mhm. boo nekkee maanaam ñi la war a jàppale naturellement dañu lay sori. Mhm. kon foofu maanaam war nga muñ. li nga war a moytu dëgg-dëgg tamit maanaam di dugg ci loo xam ne lu leer lay doon bañ a dugg ci loo xam ne maanaam après ñoom dañuy toog naan xamoon nañ ko. nit ki bu nekkee da def dara li ngay def mu dëggu. jaamul yàlla di nga gis lu ne. di nga dégg lu ne. nga nekk ndaw xoolal sa yoon rek. xoolal sa yoon bu nekkee yàlla daf la jiital nit ki dox ci la fa xasal amul. amul waaw sëtu Lëg Daawar yi waaye ku nekk di génn naan man sëtu Lëg Daawar la waaye bokk nga ci sët yi nga xamante ni ñoo gën a fës. am na ñu fi génn doon ko wax waaye kenn déggatu nañ peut-être dañu ko doon bubboo waaye yow ba nga ko waxee ba léegi boobu ba léegi yaa ngi fi sa digganteeg sa maam wala sa digganteeg Lëg Daawar. non man sama digganteeg sama maam laa xam muy Lëg Daawar à part kooku kenn keneen kuy woote woo sëtu Lëg Daawar wala dara xaw ma la. Mm-hmm. ban xaritoo maag benn sëriñ xaw ma benn sëriñ. Mm-hmm. ñiy woote woo sëtu Lëg Daawar kenn laa ci xam muy Idrissa Mhm. te kooku sama xarit la sama lépp la dañuy déggante dañuy def loolu à part loolu xaw ma ci keneen lëg daawar mi may feeñu mi ngi may wan li ñu a def ci dëkk bi mi ngi ma koy wax damay dem ma def ko mhm. keneen ku koy wootoo wala xaw ma leen sama laa xam mhm. voilà te dëgg dëgg dëgg man maay sëtu lëg daawar beneen nit bu toog di wax maay sëtu lëg daawar lëg daawar beneen nit sët yow mi moomoo sëtu lëg daawar nga lëg daawar dama ne képp ku yeewoo Dakar sëtam nga ni mu nekkee ndabu Ndakaaru nga yeewoo Ndakaaru far forsu sëtam nga comme yeneen rab yi niñ nekkee yeneen dëkk yi nga dégg ñoo la man sëtu bint di di la limal. Mhm. comme yeneen dëkk yi ni mu amee ay rab. Mhm. ay maam boo nee cees nga rab ba fa nekk. Mhm. nga wax maanaam Ndar wax Kaolack. bar mboose rab yi bëri nañ ci dëkk bi ku ci nekk da nga am dëkk boo xam ne fa nga nekk nga gérer ko. waaye rek ba nga nekk nga gérer ko am nga fa ay sët yoo xam ne maanaam yow mënoo génn di wax ak nit ñi mënoo génn di def saraxi waaye ci kooku nga koy jaarale mu génn di ko def. te lëg daawar Sénégal fii ñëpp xam nañ ko fi bañ na ko ba bu génnee da nga naan fasu benn tànk bi lañ gën a xam mais alors que ne man maa leeral que ne fasu benn tànk bi kookoy lëg daawar. yaa mm-hmm, ko leeral. waaw ah, koo koo dañ daan wax fasu benn tànk fasu benn tànk fasu benn tànk mais xamuñu woon kan mooy fasu benn tànk.

Euh, tey ñu war ci ñu waralu seet sa seet du doon seet boo xamante ne seet bu doy waar la maanaam ku ko ñemewul dëgg bëy boobu bu boo doo ko seetal ndax da ngay seet bay tudd tur lu tax nga taamu ci préféré di seet di tudd tur. ah parce moom moo gis nga nit ki lu muy def rek. Mhm. na ko mën te li ma laaj ne dama ci sawar a tontu. dëgg la parce que naan ma naan laaj balaa neex rek nga laaj ko euh, nit koo xam ne li nga koy laaj moom xam na ko. Mhm. man seet gi may seet benn dama ci dama ci ànd ak dëgër man ku ma seetal dama lay tuddal tur. Mhm. waaw li gën a kawe ci seet mooy su ma gisee sa papa ak sa yaay la liggéey dama la koy wax. Mhm. waxuma la keneen. Mhm. man ku ma seetal su ma gisee nit. koo xam ne maanaam ku la yéene lu baax la jegala dama la koy wax bu ma gisee nit koo xam ne yéene lu baax tam jegala dama la naan maytul diw ak diw. waaw moo tax seet moom lu tuuti la samay nit. ak boole ñaari nit. ak boole ñaari nopp loolu lu tuuti la samay liggéey. man képp ku ma seetal dama lay tuddal tur damay seet ci petaaw damay seet ci ndox damay seet ci kurus. ci wàllum nopp sànq da nga point la boo xamante point bu doy waar la parce que moom la ñu gën a ngay dégg ñu naan nopp vingt quatre heures nopp douze heures de temps nopp soixante douze heures ci wàllub nopp suñu mu doon loo xamante ne yow suñu borom nit ñi ñoo ko yombal mais yombul de hmm? waaw nopp nga nopp nit ki ba maanaam foo ko woo mu wuyu la bëgg la ba du am ci sago waaw man naa laa noobal sa borom kër ba ni mel ci bu amoon soixante quatre jabar ni mel ci du ko mel ci nit ki dox wax nga musiba de nga ma. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa dama naa laa noobal sa borom kër. waaw mën naa laa noobal sa copain ba lu mu xam wax la lu mu am bokkoo ak yow ngeen nekk ci jàmm. ngeen nekk ci jàmm. te noot ma lay noobal dama noot buy ànd protection la parce que noot bi ma lay nit ku dox ci kaw su leen a séparer amul. amul waaw nit koo xam day dox ci kaw su mun leen a séparer di ngeen nekk ci jàmm te loolu ci ginaar bu góor ak ginaar bu jigéen laa koy defee. ginaar bu góor ak ginaar bu jigéen noob moom lu tuuti la suñuy liggéey incha allah rabbi Euh, sëriñ bi tey dama fa gis ay sungufu doy waar yoo xamante ni xaw ma maa ko fa dul fekk xaw ma day lu bet ci yow muy po yu ndaw ndawaan yi kooku sëñ bi yàlla dafa def ma gis ni si communiqué ko bu doy waar. po yi ay po lan la. lii ñu ngi ko liggéeyee nebedaay. nebedaay. waaw parce que po yi day dox ci wàllum ngóora. Mhm. lii demal ne bu nekkee da koy jël mën nga sëy ak sa soxna trois heures de temps. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. moom po yi. billaahi lazi laa la sam waa ji xam na dara. lii bu nekkee danga nga koy jël boo yomoon day defaraat sa ngóora bu nekkee da nga tële woon day defaraat sa ngóora bu dee dara jotu la da nga bëgg sa ngóora yokkul hmm. lii ku koy utiliser mën nga sëy ak sa soxna trois heures de temps trois ñu ngi ko liggéey ci nebedaay te góor gu koy jël tamit maanaam daf lay euh, daf lay def maanaam ngay lekk waaw am na beneen bu fi nekk boo xam ne maanaam jigéen joo xam day sëy te du yëg na nekk rab parce mën na nekk ak yow ngay sëy ak sa so ak ak sa kër mais bu ngeen di sëy da gis ne maanaam yow sa day tàng Mhm. nga gis koo xam day sëy ak borom këram mais xolam day tàng mhm. nga gis koo xam maam day sëy ak borom këram ba pare mais day day day tourné dem di masturbé wu di jox boppam lii ku koy jël dina am benn aaya alxuraan buñ ko ci booleel nga koy naan incha allahu rabbi booy sëy ak sa borom kër da ngay yëg plaisir da yëg plaisir léegi nag dafa am beneen euh, beneen boo xam ne moom moo nekk nii mhm. bii cuuraayu seytaane la bi cuuraay seytaane la waaw bii dama la ne bu nekkee danga koy jël waaw de ci cuuru di ci cuuraay say njaboot lépp loo xam ne day lor nit ci mbedd. waaw billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa yow moom du la dal yow ak sa njaboot. moom lii. muy dëmm muy nitu guddi muy kenn lii cuuraayu seytaane bu am doole la. Mhm. te lii gis nga bu nekkee maanaam da nga koy cuuraayoo nit ku la gis mu nekk koo xam ne maanaam ku ñuy tooñ la. waaw da lay daw. moom lii. waaw moo tax cuuraay la boo xam ne mënul ñàkk ci kër. ku ko mën a am nga wut ko yow ak sa njaboot parce que yaa ngi génn yaa ngi dajeeg nit ñi xam nga ngay dajal kan la. dëgg la say doom ñi ngi génn dem ci école yi di dajeeg ay xale xamuñu xamuñu ñuy nekkal kan lañ xamuñu leen may lekk. dëgg la lenn moo la may del protéger wu. ku ko wut luy lore ci mbedd yow moom du la daal. macha allah kon loolu lu am solo la ñu koy joxe loolu tamit. macha allah mm-hmm. euh, sëriñ bi dañuy ñëw ci wàllum actualité balaa ñu ñëw sa sa sa li nga xamante ni yàlla dafa def nga koy faral di def chaque année mm-hmm. chaque at nga génn réew mi mm-hmm. dem ganali tubaab yi ak naar yi loolu dañ ci waxtaanee léegi léegi waaye sëñ bu tey ci wàllum actualité ndax yàgg nañoo toog nga naan moom moomoo jàppal bés bi bind ko ci fi bés bi ko fii diw dina def lii wala dina def naa te bu demee ba yegg ca dama koy daal di gis ci wàllum actualité ci réew boo ñu doon wax lan nga ñuy wax. moomoo saraxu Ndakaar li ma lay wax ma baamtu naa ko ñetti yoon man la dañ ko war a def. saraxu Ndakaaru waaw parce que dafa am yu bëree bëri yu fi am loo xam ne maanaam dëkk bi ñàkk jàmm moo moo moo ñu koy wan moom moo dama naan lii sax nga bind ko nga teg. Hmm? waaw parce maa ngi koy wax avant émission bi di commencé man la damay gis maanaam kilifa gu mag ci ci weeru nawet koo xam ne maanaam ci télé yi lay nekk ñëpp xam ko. Hmm? muy dee xam ne maanaam buy jaaxal ñëpp lay doon. sëñ daaw daf ñuy wax ñuy génn di ko wax mais nit ñi li ñuy déglu mooy sëñ Jéeli nee na am kilifa guy dee ñu toog ñaari fan ñetti fan gis ko. dëgg la bu nee nañ génn def sarax bii nii ci ndakaaru maanaam pour dëkk bi am jàmm. ñu mhm. soofantal ko duñ ko def. Mhm. te xam nañ ne ñoom ñoo la gën a xam ne sëñ ji la lu mu wax ñaari fan ñetti fan day am. Mhm. ndax li koy wax loo moom mooy rabu ndakaaru di xam li nga xam moo war a xew suba ñu koy def yàlla bu suñu borom diñ ci may ndam. ñu koy wax tamit maanaam nit ñi di ko gis. kon loolu moom dama leen di wax nawet bi nawet bu tàng la bu ñu deful saraxu ndakaar. damay gis nit kuy nekk ci télé yi ñëpp xam ko muy wàññeeku damay gis di wàññeeku ci nawet bi moo tax nawet bi nawet bu tàng la ku mën a génne sa kër ñetti ndabu laax. Mhm. na nga ko def. Mhm. jigéen gu ci mën a maytu di sol yére bu xonk. Mhm. bu rouge na nga ko def. sinon rek rab yi jigéen yi nga xam dañoo tasaaroo ci dëkk bi dinañ la ngaamu sa kaw te buñ la ngaamoo sa kaw musiba lay doon boo xam dina la jur yow ak sa famille. macha allah ayca jërëjëf sëñ bi waxtu wi daan na jeex kontaan waaye nag yaa ngi utali yoonu tëgal yaa ngi utali yoon sëñ bi sa digganteeg naar yi war nga ñu ko wax waaye tam sa digganteeg tubaab bi war nga ko wax yaa ngi waaj jëm fi nga xamante ne moom mooy Maroc ba nga fa doon dem dañ laa yóbbu waaye fa dem nga ba jamono jii yaa ngi fa yóbbu sa bopp muy Dubaï ak ak France euh, sëñ bi sa digganteeg naar ak tubaab bi lan la. waaw ah, moom liggéey bu wér rek parce que Maroc bi ñu fay njëkk a dem euh, ñu am liggéey bu am solo boo xam dañ leen ko fa doon defal. Mm-hmm. ñu dem ba nit ñu ràññee fa ba boo nee Serigne Djily sëtul ak Daawar Maroc ñëpp xam nañ ko fa. dëgg la. foofu Mm-hmm. ba dem na maanaam képp koo xam ne dafa am soxla foofu. mu mm-hmm. jaral ko mu dagal ñu béyoom ñu ñëw defal ko li ñu koy defal ci sutura ñu dem. France tamit naka noonu donte maa ngi fay doog a teg sama tànk. Mm-hmm. mais tamit ñëpp am nañ ci accès buñ fa ñëwee. ku ci nekk dañ la wax fi nga nekk ñu gisante. liñ la mën a defal ñu defal la ko. yàlla bu suñu borom may ñu ci ndam moo tax tukki ñuy tukki yëpp donte nekkul suñu dërëm lañ ci def. Mm-hmm. mais ay nit ñooy bëgg ñu liggéey leen ci sutura wala dara ñu ragal ñu bee ñun tamit ay xale lañ jot gi may nañ ñu ko. ñu mm-hmm. liggéey ak ñoom te liñ leen defal yoon yëpp dañoo bëgg yàlla bu suñu borom may leen ci ndam rek ak ñeneen ak ñeneen ñu ci xaj ci temps bi fay def. macha allah voilà. ayca jërëjëf kontaan nañu sëñ bi di sëtul ak daawur lan ngay daal di tàggatoo waaw ah, leen xamal rek maa ngi leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp comme ni m ko waxee toujours mm-hmm. leen wax ne saraxu Ndakaaru buñ ko fàtte Ndakaaru 14 régions la Mhm. région bu ci nekk nañ fa genn benn nag jàng fa benn kaamil loolu buñ ko defee incha allahu rabi dëkk bi dina sedd mhm. jàmm dina am salaam dinaam am mhm. waaye buñ ko deful képp ku fi am tur surtout maa ñi fi nekk képp ku ci am tur ku yaakaar ne maanaam yow nekkoo ci danger bi yaa ci njëkk yaa njëkk waaw kon saraxu ndakaaru nañ ko def ñu sàmm dëkk bi te ko sàmm du keneen ku dul man ak yeneen borom xam-xam yi nga xam ne maanaam rab yi ci dëkk bi jox nañ leen bopp buñ ko defee rek yàlla bu du borom may ñu ci ndam masha jërëjëf sëtul ak daawar ñu koy jaajëfal bu baax topp ngeen ñu topp waaye tamit di leen jaajafal ànd bi ngeen àndoon ak ñun di leen jox nag di daje bu beneen incha allah merci beaucoup jërë ngeen jëf